Euh, justement, par rapport à l'actualité politique, nous parlons euh, des élections législatives il y aura un 31 juillet 2022 Nous avons vu que bëri woon na Tcherno. nous ca ca Thierno euh, gis ay liste peut-être waa gëm sa depuis l'étape parrainage euh, lañ rejeté Nous déposé recours auprès du conseil constitutionnel euh, ci la coalition Benno Bokk nous euh, ñu gis que nous avons mis liste am na par rapport ak respect ou parité liste Yewwi Askan Wi l'autre coalition aussi ñu gis déjà la liste de Dakar mais également Yenen yu Benno les 15 départements peut-être yu ci nekk respecté wuñu mettre tamit parité am problème entre autres nous def ay recours au ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel une euh, décision peut-être ñii ñu éliminer leen rejeter leen en tout cas euh, Nous ñu ne wa Benno ak wa Yewwi bokkaat nañ euh, ci ci course bi ñu gis leen wa ar Sénégal ñen commencé aftu depuis le début wax né que élection et quoi qu'il en soit dañ ko wara tenir le 31 juillet d'une autre part ce qui s'est passé c'est par rapport au Conseil constitutionnel euh, nous que c'est une catastrophe parce que là, le Conseil constitutionnel rendre décision décisions. Euh, euh, pourquoi vous avez souligné que catastrophe alors d'abord nous ne dama lay Conseil constitutionnel Sénégal day jox ah bon Conseil constitutionnel juridiction la. Mhm. juridiction tant que c'est une loi mhm. Et on ne ne si Si la a basé la loi on ne interpréter. Mhm. mais conseil constitutionnel Sénégal parce que wax ji du conseil constitutionnel suba mais on reste constant. conseil constitutionnel loi à na fi fi si réew mi mu loi bi tegg loi am 2017 mu ne léegi mën voté ay récépissé té loi bi l'air nañ si bonne façon de lañu voter. mu à titre exceptionnel quand conseil conseil c'est arroger le droit d'être dans l'exception mhm. alors que la loi est générale et impersonnelle mhm mu ne mun dañu war a voter récépissé man mii soo demoon tàppe internet tey bind naa si texte pour expliquer ne conseil constitutionnel amul droit boobu. si conseil constitutionnel ñëw defaat leneen. parce que nag dans cette affaire. Mhm. du mbirum Bennoo wala Yewwi wala Massamba wala Mademba. ça va au-delà non on parle de loi. Mhm. on parle d'état de droit. waxuñu Massamba wala Mademba parce que Massamba ak Mademba suñ leen mënee tudd c'est parce que dañu gis problème bu am. ci seeni list te mënuñu ñun ne dañuy bëgg a indi rupture ci réew mi bugg na ñun lu ñuy am ci démarche démarche objectif lay doon ñu gis ne lii baaxul fii gis ne baaxul fii ñu tudd benn bi rek bàyyi beneen bi mënul nekk mhm. da ngay wax yépp parce que da nga koy def jàpp na ne ne loi dafa war a appliqué wu su ñëpp lu ñuy wax erga omnes ñëpp la war a appliqué wu bi mu dem mhm. bële dafa teggi loi bi fële bii dafa ñëw génn vide juridique te damay rappelé ne vide juridique boobu mu génne. Mhm. daf ko génne pour Benno Bokk Yaakaar te danaa leen expliquer pourquoi. comment ça déjà. voilà ndax mu génne ko pour Benno Bokk Yaakaar. Hmm. parce que dafa am ñaari article yoo xam ne soo leen cumulé. Mhm. dafa dafa leeral lépp article L 179 article L 178. Mhm. article L 179 moo parité. Moi, d'une manière alternative je vais mu expliquer maintenant nous, ñu koy fait ci département sur des benn la mhm. article L 178 mu condition yoy nga condition obligatoire la. Mhm. su amul ci liste la liste est inacceptable, est irrecevable bokul oui c'est très clair la loi est très claire foofu mu am li xew Dakar ñepp gis nañ ko. Mhm. ñepp gis nañ aussi. que fi ñu mu xew ñooñu seen bopp wax nañ ne erreur bi si ñoom la loolu tamit kenn inventé wu ko mais si diggante ba mu am problème si liste. Benno Bokk Yaakaar. ñoom loolu ma la wax si règle boobu artique article L le article L 178 dal seen kaw maanaam seen liste nationale warul bokk parce que ñu tegle ñaari jigéen amul alternative. Mhm. mbir mi dem conseil constitutionnel par rapport à liste Dakar parce que pour mu dem conseil constitutionnel il faut que le ministre chargé loolu le ministre chargé des élections ministre de l'Intérieur, nous mu notifier irrecevabilité bi. ba mu notifier irrecevabilité bu liste Dakar mandataire Dakar dem yóbbu ko conseil constitutionnel. loolu article LO 184 bi moo ko prévoir. suñ la man suñ la suñ la wul il faut que nous notifions la. il faut que nous notifions. la fii ñu procédure bi. maintenant am na de phase boo xam ne suñu publier liste yi pouvons lañ koy notifier nit ñi mën nañoo dem. Mhm. ñu yóbbu mbir mi conseil constitutionnel. ba ñuy ñëw dañ ne ko euh, juge yi ñun de article 176 alinéa 6 ak article 140 L 149 si le la ñu pour wax leen na dañoo bëggoon dugg dépp def suñu remplacement ñu tere ñoo def suñu remplacement te amuñu ci droit. Mhm. base légale bi bu tax ñu ñëw mooy article L 176 6 bu wax si euh, li nga war changer ay dossier d'une manière légale le remplacement de dossier. Mhm. te loolu ça c'est discerné à la commission mooy prérogative commission bi. commission bi article L 149 bi mu jëm ci li ñuy wax inéligibilité yi. Mhm. mu ne looloo tax ñu ñu ko conseil constitutionnel au lieu que mu xool article 176 alinéa 6 bi ak article 100 L 179 bi na ak ñoom demande bu ñu def parce que c'est la requête ñoom ñu ko def on les appelle les requérants dafa dafa teg loolu ñaari article yooyu yëpp mu dem wuti ji vide juridique waxu foo liire arrêt bi ba mu jeex. Mm-hmm. tudd tudd na ne ñii ñëw nañ ne. 176 alinéa 6 ak 140 mais waxutu si daf ko teg fële dem wuti vide juridique dem ne loolu loi bi 2017 bi sax. Mhm. Euh, abrogé woon ko déjà une loi abrogée n'est plus dans l'ordonnancement juridique gisuñu sax la moo tax mu mu wax ko mais nañ bàyyi noonu mu loi boobu abrogé nañ ko donc moom nee na comme amul lenn luy wax ne ne amul amuñu droit def remplacement am nañ droit def remplacement mun ngeen dem ngeen def seen remplacement waaye ibbiwul enveloppe bi maanaam même si dee dafa créer vide combler na vide bi mais en partie parce que nee na leen dem leen ngeen remplacer waaye enveloppe ba li fa nekk ndax góor ak jigéen laak yooyu moom waxu si waxu si waxul ne góor mooy remplacer góor jigéen mooy remplacer jigéen daf leen dem leen remplacer ñoom it ñu dem remplacer. d'accord ñu dem remplacer. Mm-hmm. waaye loolu xam nga ndax mu ibbiir ko benn bokk yaakaar parce que Benno Bokk Yaakaar ñoom dañ ne fu ñu amee problème c'est paritaire maanaam seen liste suppléant bi da am ñaari jigéen yu tegaloo waaye aussi am na feneen fu ñaari góor tegloo mais sooy xool 25 25 la. ça veut dire que su moom su waxee ne nit ki mën remplacer à tout moment ça veut dire que Benno Bokk Yaakaar kon mën na dem remplacer de intervertir moom du remplacer sax day rek intervertir parce que loi bi terewu ko. Mhm. xam nga kon do kiyam deuxième day baax waaye su dee pour Yewwi la da koy permettre mu gagner une bataille mais mën na ko empêcher de gagner la guerre parce que si bu ñu diffuser la liste à la fin DG ñoom mën nañ ko rejeter sur la base que ne remplacement yi góor moo waroon remplacer jigéen soo ko yóbbee conseil constitutionnel. mu dëggal donc remplacer rek la ko wax waxul ndax góor moo duggul ci loolu. donc lii daf ko ibbi pour juste permettre à la liste nationale de Benno Bokk yakar mu jàll. mais maintenant mais, mais, au cas où ma dal fofu rek bal ma rek au cas où pour pour pour ñëpp comprendre. au cas où maintenant. Mhm. Benno Bokk Yaakaar deux deux yoy ñu wax parce que ñun suñu mandataire de na deux jigéen ni la gis deux góor peut-être amna na mais su parité amu fa ñom ñu wara remplacer comme Yewwi comme ñom it dinañ am possibilité remplacer. moo c'est pour te dire tout simplement que brèche bu ñu ibbi brèche le pour sauver la liste de Benno Bokk yakar maintenant le problème mooy. Mhm. conseil concerné du gulet. conseil concerné dañuy fàtte juge fa le président de la république moo Faitek. fay teg nit ñi dañ koy mythifie tellement de choses Les décisions yu ñu yàgg di jël ci réew mi notamment troisième mandat etc., etc., et cetera yàgg nañ ko fi décrier conseil concerné dem na ba la place du législateur day dem ba léegi lépp loo xam ne ba nga ko tëral ci politique président yi su ñëwee conseil conseil mën na ko am loolu la ñuy décrier D'accord. Mais, mais, mais avant même nous décrire décrier lolo, peut-être yéen ngeen waxu euh, Bara yogo bi Amon, entre autres dinañ ci ak l'original mais du moment que le euh, conseil constitutionnel dafa wax par rapport à remplacement parce que remplacement également mon moo ñuy un vide juridique euh, les experts sax ñuy saytu l'élection, élection avons également un vide juridique boobu nous amené sur la table pour justement nous rendre légitime le fait que nous saisir conseil constitutionnel et conseil constitutionnel tu loolu le rendre décision donc pourquoi penser que y a Anguissou sous roche par rapport non xam remplacement yi code bi wax oui wax na ko c'est une énumération exhaustive erreur matérielle mhm. inéligibilité la ak yooyu c'est-à-dire que c'est clair Ça à dire que Sony je vais vous jox un exemple rek <laughs> sonné nee lu lu ko su ko loi bi waxul mhm. Ce qu'on n'interdit pas est permis. Wow. <laughs> D'ailleurs, j'en profite pour parler du parrainage. Euh, euh, très franchement, quand, quand le Conseil concerné évoque l'article 4 de la Constitution, candidat. pourquoi appliquer pour l'unité parrainage On était à 47. Nous avons une liste la moo conseil constitutionnel woowu invoqué l'article, l'article. comme dafay dafa ibbi parce qu'il fait une interprétation très extensive Si su va dugal si unité téye parrainage parce que war nañoo concourir comme ñëpp. Mhm. loolu parenthèse Mais mais surplus bi par exemple l'une nga décision bu conseil constitutionnel sur mais surplus bi dafa ne yéen warulee nous saisir parce que est notifié wuñ leen du ministre de l'Intérieur, il a notifié wu leen luy a mën a tax ngeen saisir. Mhm légui nañ ñu wax ci biir code électoral bi fan lañ bind ne su leen ministre de l' intérieur notifié wul amoo droit dem si conseil constitutionnel comme dafay def une interprétation active euh, extensive pourquoi il ne l'a pas fait dans ce cas parce que fële amoon na si biir code bi am na fu ne remplacement yi diw ak diw ak diw la mais dafa ne woy wax nañ loolu waaye waxuñ ne amuñu droit remplacer waaw d' accord. Mhm. waaye léegi ni tax waxoo ne wax nañ ne euh, euh, mun nga dem si cour cour d'appel euh, conseil constitutionnel suñ la notifié mais code bi waxul fenn ne suñ la notifié wul le ko def waxuko waxuko Donc, fenn donc di ngay jógee raisonnement yoy suñ si duggé mais ça va ça risque d'être très grave pour ce pays motax ñun ñu japp na ne xam nga dafa am ño xamanté je pense que débat yi yeb wax nañ ko mais man je dinaa si revenir ci question wu yi parce que lolu dafa metti ñep yow am nga 15 millions 15 millions nga war ko loi bi na chèque de banque ngay joxe nga qui euh, de consignation caisse de dépôt consignation mhm. ñom dañ lay défal cutis bi nga mëna tax yow da ngay déposer ji mhm. ñu am 15 millions parce que tout simplement nous avons ko que euh, chèque de banque mhm. dañ leen ko parce que pourquoi parce que c'est la loi ñii ak ñeneen ak ñeneen parrainage bi fuñu ñu jaaree nii ñu ne leen loi bi fuñu ñu jaaree nii ñu ne leen loi bi waa loi bi xanaa ñenn ñi rek la fi nekkal loolu la ñu d'accordul. deux poids deux mesures ce n'est pas di ko deux poids deux mesures nag su commencé ci réew mii. Mm-hmm. ñun en tout cas bokkuñu suñuy permettre deux poids deux mesures am ci réew mi. moo tax on a dit et d'ailleurs lii gisoon nañ ko ñëw ñun ba ñuy artu kii bi décision bi daanugul woon. Mm-hmm. parce que ay nit taxaw nañu nañ teg fële loi bi ñu ngi pour que loolu mu am. pour ñu def tout pour que conseil conseil mu bàyyi gars yi dem. mais au nom de quoi en 2007 l'essentiel de l'opposition avait boycotté les élections de 2007 mais assemblée nationale dox na parce que waar bi moo chef de l'opposition Modou Diagne Fada. ñu dugal benn loi boo xam dañu jëlee député de 15 à 10 permettre que am groupe parlementaire de l'opposition. Mhm. ñu continuer. Mhm. amul rupture c'est ça 2019. oui mais ay kilifa ñoo xamante ne kenn mënul naa table représentativité dañ leen a Khalifa Sall Karim Wade mais loolu lu ko gënoon graaw c'est aduna, pourtant dañ ne la loi c'est la loi ñu continuer. Mhm. ba résultat yi am. pourquoi aujourd'hui ñu bëgg wax ñu légui nak il faut nécessairement ñu xool nan lañuy kiyé parce que bëgguñu dëkk bi ban dëkk moo fi tàkk. À kan moo fa mën non il faut qu'on arrête. <laughs> ah dañoo jàpp ne peut-être euh, euh, euh, coalition yu yu yu enfin entre autres entre guillemets yu mac lañu suñu bokkul mën na indi leen loo xamante peut-être du ñu xam fu ñu peut-être lolo tax ñu wax on ne va pas du ñu donc la loi du plus fort est toujours la meilleure. on a l'impression alors on va y revenir tierno, mais de de, l'autre côté Gueye l'original c'est un cas quand même c'est c'est c'est c'est assez particulier un cas qu'on ne comprend pas parce que moi, je peux comprendre aujourd'hui euh, que nous euh, ne kii rejeté parce que respecter euh, ou parité